mission bi day daw ne ma carrément papi laa nopp mais noble. la yow tu la ferme waay yow. bu fekkoon góor nga soo nobee roman doo Eh nëbb. c'est yon yoon newu ci yow xam nga ni man ak réputation bu ma am si temps bi ak show yi may jël mënu ma show di ko te loolu sax c'est pas important dama ne la. Eh. sa grand bu bëggee ñaareel noo ko wuti. mais du sama show lay jël man je te connais parce que xam naa ne de support nga moo tax nangu woo fësal loolu comme nag yëgu ma ko def naa li may def c'est déjà fait est-ce que yaa ngi may dégg bu baax wax roman dama ko koy may par A ou par B muno ci ñat deureum et puis du yow ya koy dindi du sa morom mo koy dindi faalewu la regarde-moi merde laylatul xadar mu nekk guddi gi gën ci guddi yi ah sama xol sedd na man nag omo ku dul ñu dul njaboot gi omo ñu dul ñii mënu am ñu gën a rëy ñii ñu waxtaanee suñu diine dellu si yàlla ndax guddi gi daa nekk guddi gu sell nekk guddi gu baax ñu war kaa waxtaana nag bul bàyyi dara bul bàyyi dara yi nekk ci kër yeeg li nekk ci koñ yeeg li nekk fépp xam nga diine mu bàyyiwul dara tan moytu xuloo nag sama wareef nag mooy guddi gi mu xool koo xam ne ku jàng la macha allah indi ko ci kër gi mu delloo si si yàlla ndax lu baax du doy nañuy wax lu baax ndax ñu koy signé di ko yóbbu ku ci wax lu bon nag loo dal yaakaar sa bopp guddi gi di guddi bismillah salaamaaleykum kakak kaay toog bi fii laay toog yaa ngi toog ci kaw sëñ bi de ñu wàññi coow ak xuloo ma leen koy dénk di ko dénk sama bopp ndax malaa koy wàcc nan de lu baax dañ koy yóbbu yàlla nañu yàlla xiir ci lu baax bul bàyyi dara yi nekk xew-xew yi nekk ci kër yeeg ci mbedd beeg ci tali yeeg oto yeeg lépp waxtaane ko ana bi asalaamaaleykum maaleykum salaam kilifa gi ñu ngi lay ziar jox sa wàccuwaay te naan rabbi sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yow soo ma woowee damay sawar a ñëw ndaxte da nga bëgg njaboot te da nga dégg waxu suñu borom bi ba muy naan nit ku ne sàmm nga sàmm bu ne danaa la laaj ana lan nga sàmm nga ciy dox di ci wax di ci jëf fu ñu jengee nga redressé leen di xeex suba ak ngoon kilifa gi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay ndax euh, ku am ëdda ba ngi nii hmm? xale bu yaru hmm. nekk xale terulah ya, laa yaru mhm. jox cër ña la mag mhm. respecté mag band bare je kenn mhm. yàlla sa amin amin ñu lay ñaanal de ñun wa jakk ji yep ñu lay ñaanal yak sa ajaratu bu bu bu tedd bi bu tey bi soxna si nga xam ñepp ngi am ku melni mom ndax da euh, dalam mhm. yaroom mhm. ak teeyam référence la loo ko ñaanal doyul référence la ci jigéen ñépp mhm. kullu jigéen rek war naa xool ci yow bëgg naa ñu waxtaanee ci ñetti ponk nga gis nga société bi ni muy doxee léegi doy na waar torop nit ñi dafa mel ni dañoo fàtte waxu suñu borom ba mu naan kullu nafsin zaaixatil maut kullu man alayha fan wa wajha hmm. sëriñ daru dunia daru man na dara la fii du way ku ko def deku way yaangi nax sa bop ndax gis nga lima sel ci keri mooy goro yi sonal lool lool lool lool lool seen soxna yi hmm. Hmm. te li ko waral du dara lu dul iñaan bañ seen doom yi dund bànneex hmm. ak mbégte kase moo ko waral ndax da ngay bañ nit munoo sax justifier li tax nga bañ ko lol nekul say wax de moko wax <laughs> waxi diine ngay wax ci di de dal dafa universel manam mom bawul dara waaw ci xale yi legi jangatu te iñan dina la wax tay limi def ci nit dalay def ak ngom muy ronger sa xol chaque jour doo ci mën dara ngay passer lu doo rafet ngay make bu doo nice rosaw xale-xale lu lu ne nga dugg ca du tere ndax lu ne ci xol rek feeñ ca kanam te ñëw rosa xol yi make up xol yee gën di make up kanam yi ndax xale yi seen say metti na ah. seen sey metti na lol ci de te gis nga njëkk yi dafa am luñu ñu luñu luñu ñu luñuy ñu lu ba lu ñuy fàtte. Mhm. pour ñom mhm. duñu genn dañuy uuf ci kër gi rek. Mhm. yëg nga ni sey bu tas njëkk yaang ci di xam rek di xam rek ah na ngeen muñ ndax.

xàmme woo ko yaay kii toog na ba sonn pour mu jox ma jox ko sama numéro xaw ma ku la habillé waaye rey na la bandi nga nga nga fi indeeyam waaye gis nga man mi ngeen di gaaruwaale dara yow fone nekk sëriñ bay warate du dangaa bëgg kula war do doo Iran daw mu ñew wax la buy tak ta du fay ta lum la wax du ca delu ñu ay dof la ah da ngeen bind li ngeen faaw caat musuma gis li nak ci aduna nak mu dañ li rek ko déssé won ci man ay jël big jël foy ngeen binde binde binde binde binde binde binde ba sotal nga ñew ni dojju ne lire yow xolal fa ngay jàngale juróom-ñaari goné ca nek ku ni baadu ni seen jógal même mo ñu do ko